asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu leen ziyaara bu baax di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naal yépp yéene ko liggéeyal Serigne Touba mu defee ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal njabootu Serigne Touba yépp ak mboolem kilifa diine di ziyaara bu baax Serigne Abo Touré nga xam ne moo nekk ci bopp njamootu Cheikh Abdoul Karim ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko te wéral ko ba naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yépp naal nañu ko màggale ko di ko ñaanal jëwriñam Serigne Omar sunu borom yàggal ko ci ginnaaw kilifaam gi te dëgëral ko e noonu la ñuy siyaaree soxna Bintu moom it baax a baax di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko di nuyu njabootu sëñ Abdou Karim yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi muy sëti sëñ Abdou Karim yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara bu baax a baax kenn ku ci nekk ci Euh, turam ak santam di nuyu jaarale nuyoo bi ci sëñ Abdul Wahab ak sëriñ Moustapha ak sëriñ Abou mi ak mbokk yi nga xam ne ñoo ngi fi di jaajëfalit kilifa yi nga xam ne ñoo doon jàllale waxtaan wi léegi sëriñ Abdul Xadir ak sëriñ Mor ak sëriñ Abdul Karim waxtaan wi euh, alhamdulilah euh, sant nañ ci yàlla bu baax ndax loolu la ñu si jublu woon ba tax ñu ñëw daje fi tey jii ñuy sant mbokk yi nga xam ne bàyyi ko nañ ci béréb yi bari ñu fekkee si jotaay bi di jaajëfal sëñ Mouhamadul Makhtar Diop mi nga xam ne moo yoroon wàllu coordination bi ci bokk yi nga xam ne ñooy presse bi di leen jaajëfal bu baax jataay bii li ko sabab sëñ Mourou wax na ko mooy di waajal bis boo xam ne dañu ciy sant Serigne Touba di ko ci jéem a delloo njukkal te jàpp ne euh, bokk na ci li ko ci gënal mooy fàttaliku ñoñam ñi nga xam ne moo leen defar ba gërëm leen ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg a faw nga boole ci ay saxaabaam waaye Sëriñ Tuubaa ku bëgg a feeñal jëfam wala nga wax ay ndamam danga ci boole mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci keppaaram di ko xëyal di ko gontal ba mu sotti ci ñoom ngërëmul yàlla li nga xam ne jëlee na ko ci boromam subhaanahu wa taala mooy waral at mu jot du nu tànn kenn lu dul mag ñi ko toppoon rek ngir bu nu sañoon ëtt yépp ñoo fay teew nu di waxtaane sëriñ bi ak ñu ñoñam ba nga xamee ne loola it e, jàppandiwul ci noonu at mu jot bu ñu ko tuddee kenn tudde ko ñenn ci mag ñi ñu jël ay jataay ci rajo yi ak télévision yi ak site internet yi waxtaane ko ci àdduna bi ñu baree bari di ko jariñoo waxtu wu ne mi nga am résultat nag ndax léegi-léegi jamono bu nekk ay nit ñëw wax nu dundee seen jiw waxtaan yi lañ ko dégg sopp ko ñii tuddee ko ay doom ñii di ko di di ko sopp ñii di ko ñan ñi di dem ci seen barab yi di leen siyaare ji te seenu njaboot sax mën na ko bañ a yëpp ndax ñoom nit yàlla lañ te képp koo xam ne yaa ngi leen di fàttaliku rek la leen suñ borom defal faaw ñu ñu suñ borom sédd la ci Cheikh Abdou Karim Touré mi it bokk ci mag ñi nga xam ne dafa seddu ci Serigne Touba jàngale si lu bare bari doon koo xam ne dafa jaay li mu bokk Serigne lépp mu di bokk jënde ko ak taalibe nuroog Serigne bi it aw waxin ci lépp ndax ku jaay ku joxe jëmmam joxe ruuxam joxe diineem joxe njabootam joxe léppam loolu it mooy li Serigne Touba def rek jël léppam jëbal ko alayhi salaatu wasalaam mu seddu ci Serigne bi lool nag ba defe naa néew na jataay boo xam ne nii danga ko tudd ci yoon wi Cheikh Abdoul Karim te nit ñi xamuñu kan mooy Cheikh Abdoul Karim Touré